أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون يو اي كيسيون لا امبورطون سو كيسيون ما كروك بيماي بوزي كيسيون يوي تي بير وقتان بي دو لين خولاي وقتان يي جيتو نين كو تي فيك داما واخ ني نيت منغا ام ويجور ملياردير مو باي لا في 12 مليار ها مو فاتو 10 ans après ñu tejj la pourquoi parce que da nga am ay bor xam nga li xel ko waye dinay am de ku am ku héritage milliards 10 ans après mu endetté wu bañu ko ça arrive gis nga ci côté pécuniaire côté lucratif wallahi non la amé ci yalla. lan surtout Sénégal ñoo ci Sénégal Sénégal c'est des spécialistes en gabégie spirituelle c'est des spécialistes en gabégie spirituelle. finance tamit. Hein? financière tamit liggéey yàq ci mais c'est la même chose. Mm. mais mais mais mais gabégie financière loo liggéey ci xaalis mais bu subaa nga ko liggéeyaat. Mm-hmm. mais li nga liggéey sa borom doo ko yàqee ku la wax ne la bu bu dina la nangul racine. xoolal xoolal ce koor gi ni ñuy góorgóorloo déedéet waxuma sax pas imparfait à utiliser ni ñu daan ci weeru koor nekk ci rek nan la ñuy def yéen doo déglu alxuraan dégg nga suñu déggoo jógee ci alxuraan dem ca kër ya sikkar wérd jaamu dem mais ñun koor nañu waxante dëgg ñun koor gii lañu xam sunu mag ñi sunu maam yu baax yi koor gi lañu xam gis nga yii ma lay tuddal yëpp bokk ci woon conférence yi bokk ci woon wala bokk bokk ci woon seen nuit yi ñuy def guddi yi ñuy def dem Sorano dem fii dem Fajares mos ci bokk télévision yii ñu jël nit ñi en otage di waxi caaxaan di dafi caaxaan ay ay ay ay ay waxkatu caaxaan di recevoir ay wëliyu ak ay nitu yàlla ah entre guillemets parce que ay sëriñ yu mag lañu ay nitu caaxaan ay fokat ñoo leen di recevoir di leen poser ay questions ci diine c'est une insulte am na bërëb yu xamante ni waroo caa toog loo fay def qu'est-ce que tu fous là-bas lu ku la fa woo loo fay demee pour lan parce que foofu doo fa tomee da ngay visibilité visibilité yàlla gis la moo gën nit ñi gis la nee ma visibilité nga dem fo xamanteni visibilité 1 million 3 millions 4 millions de personnes ñu lay gis 5 millions de personnes te yalla jéppi la parce que yow moomu yaay dem jiite ji nafi la guddiga après ba ngay wax allah akbar yalla neen du dëgg de gënuma mag ci yow de fokkat yooyu caaxaankat yooyu xawaarekat yooyu caaxaankat yooyu fayokatu islam yooyu waron dem ci ñom yow mom sa julli gi mom maa koy lijjanti ñii nangul na len ndax yow sa mam la lay xolé ak sa bay wa yow xam ngeen do dara yalla yalla buñu son borom amin mané amin bu ñëk koor gën daan wor la la wax ña daan wor do leen gisee da nga leen di xam dañuy jeex seen kanam ya leer seen xol ya rafet set huit mag ña non la daan woori bu ñëk ku wooraan sénégal do ko xam ko légui dañuy wor di gëna am yaram di woor di gën a saay-saay di woor di gën a doy di xam nga pecc mi ñiy wane gars yi di ko fecc ci télé bii ñu xam nga ni wooruñu suñu wooree tamit àggul seen biir xol kuy yëg yàlla ku woor di xiif di fanaanee naafila di fanaanee yendoo jaamu yàlla di yendoo déglu alxuraan du tala fecc du tala dem di jaxasoo góor ña jigéen ña décolleté ya poma werante ya xëccoo ya yëkkati sëriñ bi wàcce bi gaarwaale sëriñ bi toroxal sëriñ bi xas kii saaga ki au de la religion moo tax ñun yàqkatu euh, yàqkatu alal lañu sunu alal lu yàlla alal bi ñu am ci jaamu yàlla dañ koy yàq ñun waa Sénégal et c'est malheureux léegi moo tax ku ci amul fulla jël sa religion en main billahi danañ dem yu balé la je te le jure devant Dieu loolu ngi leen en toute sincérité c'est malheureux ça fait peur tout le monde a main a mis la main à la pâte Mon télévision yi waxkat ñëpp dugg nañ ci piège yi am na waxtaan moo ci defoon depuis 2012 les religieux piégés au mois de ramadan am na ñu ko déglu xam nañ li may wax bu baax boobu gars yi ci wax yëpp kenn waxu ci parce que boobu man boobu j'ai vu les prémices les prémices laa gis boobu gars yaa ngi teg euh, jalon yi pour nax l'islam bi yëpp mais bu njëkk weeru koor musiciens yi caaxaankat yi fokkat yi ñoom ñëpp dañ daan def trêve dem tëddi mais gis nga léegi ak politiciens yi léegi nan la ñuy def du weeru koor bi jotee ñu wutaat yeneen i pexe wutaat yeneen i pexe ba mën a nekkaat au devant de la scène au devant de la scène chaque guddi ñu leen di suivre ba deux heures du matin par force parce que xorom baa ngi ca xaalis baa ngi ca wax jàng ca mais yaa yàlla ñu yàlla suturaal te gars yi comprendre wuñ dara dañ leen di nax sëriñ su bëri dañ leen di nax dan leen di fooy yaw jigéen ña nga toogal ñëpp a ngi def seen i décolleté toog def seen i mèche toog mel ni ku yiw te ño xam nga yow ñoo ngi lay toroxal te yow xamoo ko ñoo ngi lay ñoo lay déshonoré te xamoo ko waaw léegi nag moom laa leen wax kon léegi yow ñun bu nekkee euh, te loolu yàggul pom yi affaire affaire foy yi c'est avec la les nouvelles télévisions conférence yi mais sëñ bi loolu amul woon bu njëkk conférence yi conférence conférence d'accord mais conférence yoo xamante ni ay caaxaan kese la luñ fay def way way caaxaan wax waxi caaxaan jigéen ñi kii fii ñu jël enveloppe ba jox conférencier ba ab cent mille francs mu dem ca boosam moo tax seen yoon nekkatu ci ndax weccet wa ñu bëri conférence yi xam nga ni du du conférence su dara ay ay caaxaan kese la ay caaxaan kese la caaxaan kese la. suukar si lëmb na ah dañuy fo mu ne. mu ne suukar si lëmb na xol yi loolu moo dox de. wa radiyallahu anhu dëgg la. suukar si rek. léegi nag suukar si dañoo wuti lem boole ca. ak meew ak yëpp. jaxase ca ba ku il faut nga mos ca tellement dafa dafa dafa rimb saf il faut ñu def attention mbokk yi légui nak xam nga motax man la bu ñëk euh, ñun dañ daan wor am 70 pour de l'air légui nak billahi sa soo 10 pour sax jëlal parce que lo am ci beccëk bi gaay jël ko ci guddigi lo am ci guddigi ñu jël ko ci beccëk bi ndax ay tiaxana ki fo waaw ndeysaan yalla ñu yalla sutural doo koy boo ko sax fi ngay fanane

mais ñun xamuñu loolu wéru koor ñun dañ gor góorgóorlu euh, ñu bari ci lañ dan doxé commencé di euh, julli di jaamu yalla di selal mais légui gis nga yalla ñu yalla sutural amin yalla ñu yalla sutural te kenn ñemewul wax kenn ñemewul wax <laughs> kenn ñemewul wax parce que gis nga fi ne yow ki nga wara attaquer wax ko mu delu ginaaw bayil islam bi mi foye koku mo war couvrir sa sa ziar wala sa magal wala sa gamu racine de nga wax ni serigne bi wara wax ak mom mom demande am ngi ci table ba mo ngi table Youssou Ndour wala Mamadou Ibrakan wala elage ndjay bogan wala bogan Gueye demande am pour mu couvrir événement am <laughs> da koy xas da ko wax lu bon do ko wax lu bon parce que yow xam nga ni lu bon lay def xam nga ni lii ay caaxaan la ay ay ay ay ay fo rek la waaye doo ko wax parce que da ngay calculer ne yow fii ak un mois fii ak deux mois fii ak trois mois war nga am événement boo xamante ni ñoom duñ ci ñëwul kenn du ko gis parce que yow visibilité nit ñi nga wut mais ku wut visibilité yàlla yoboo ñëpp mere la xam nga nan la ko waxee laxdar yi waxatee ah wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu alquran la sax ah la taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliqi waaw kay loolu laa doon wër kenn du topp ku kuy dee di am ay biir buy daw di am ay bopp yu metti di waccu di tufli di xaaxtandiku ay bëñam di bënn muy am ay problème ñu koy dàq muy yenu ay bagage fu nekk mu fay jaar di ñaq di tilim mais nga koy nga koy jëndee borom bi tabaraka wa taala la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliqi wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduhu yàlla moo gën a yey ci ñu wut ngërëmam ak mbégteem moom yàlla ci mbégte jaam yi dañu waxante dëgg neex dëgg neexul sëñ bi yàlla ñu yàlla suturaal donc euh, li ma bëgg wax foofu mooy jëlee nañ ay leer yu bëri ci weeru koor gi waaye gars yi yàq nañ ci lu bëri léegi nag ma moo tax nag ma ne woon dinañ def vidéo bu mujj pour li ñu yoragus néew ci leer yi ñu téye ko gis nga ci bisu korité gi lañ ñuy defal lan spécial korité programme programme spécial corité moy li ngeen ci jaamu ko yalla ko nafila ko gorlu ko ñew leen ngeen ko fi, ay dem tay. ci spécial corité Taï, ay say say lañ gis nga dañuy nit ñi duñ ko sax duñ ko sax dañ koy filmer avant xamuñu lolu nit ñi spécial yoy dañ koy filmer avant xam nga avant. tour bi dañuy dem ji ñoñu ñoñu gis

ñu ngont moyee ko yàlla allah allah allah allah allah quelle contradiction ma ne yëre jesner fara fara bazin riche percal may luus ya nga soloon xëy suba naan allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi alazimi bukratan wa asila allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd yere bi nga salon don sabbal yalla di magal yalla nax nan la ba yere bobu mom ngay dem moye ji yalla allahu akbar li lañ wax syncretisme religieux jaxasse li moy franc-maçonnerie pire te jullit comprendre nu lol ñii ñi dañuy yaakaar ne ay euh, dañuy euh, ay dañuy suul ay bop ak dañuy dag ay deret ak det li li li moy franc-maçonnerie maa ko wax yere bi nga jaamo yalla nga dem moye ko yalla jëm ju set ji wicc ci ci bakar nga dem sobat ko ci mbandum moy yalla xol te gis nga gaay ni niñ dangereux racine wallahi do ne do do ne do dem soirée ñu indi le soirée bi sa bir nek télé bi télé bi directement ñu indi ko sa bir nek sa bir nek légui sax légui do do ne sax légui duma ko sétane sa bir nek ñu defal ko sa téléphone direct kay en direct bi rek comme bi comme direct bii ma leen laalal nii gars yi noonu la ñuy defee seen direct yi ñoom it bis wax naa ko xale yi foofu xam nga sëriñu ndaw man leen ndax euh, ndax kenn ci yéen mus mu euh, am na ci yéen ku musta dem ci ci ci ci dancing ma gis am nañu yëkkati seen loxo ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko déedéet mu daal di bëgg a gis boppam ma ne ko déet xanaa muso seetaan Dakar Dakar na door fa mune ma ah kay manako manako manako dem nga soirée te yow bi nga def sax mo gëna graw ndax yow ya recevoir soirée ci bir nek mu daal ma ah, ma def len attention dama len di bëgg jangal piège yi len di euh gaay di setoran. yalla ñu yalla sutural kon mbokk yi euh, sha allah euh, wéru koor bi jall na gorul nañ ci li ñu mën ñun ñëpp euh, gars yi yàqkatu lislaam yi jël nañ lu bari lu ñu mën Euh, bi weer wi euh, um, waree feeñ tamit euh, interveniraat nañu encore tasaari jullit yi encore tasaari jullit yi ci lu dul dëgg tasaari jullit ci lu dul dëgg yooyu yëpp seen yàq la yooyu da fan la mus a amee fan la mus a amee fan la mus a amee ñii jaar fi ñee jaar fii ku nekk di wax wax yu bon yu kenn mënta dégg

kon nag liñ fi desee kus néew ah nañu góorgóorlu ba bu mu yàqu liñ ci dese kus néew nañu fexe ba bu mu yàqu mbokk yi jox nañ ñu douze milliards d'héritage waay waay waay waay ngal la bu ñu am fukki at rek ñu ñuy tëj ngir bor waay waay waay waay sama borom defal nañu yërmande ñu ñu waxati mu defal ñu njéggal ñu waxati mu nañ bind naa seen tur ci aljana waay waay mbokk yi waay waay waay mbokk yi nañ fexe bu bu yàlla mereti nañu fexe ba yàlla bu bàkkaar nañ ko wattu waaye nañ fexe ba sunu tur buñ ko bindaat ca sawara sunu tur bañ bind ci aljana bis bu nekk nay gën a leer di gën a wér ne aljana lañ jëm te bàyyi caaxaan fo dellu ginnaaw teggi sunu tànk woyofal sunu mbir xam ni àdduna jeex na àdduna jeex na li ma dal yéen ñëpp moo leen dal bërki démb wax naa ko mbokk yi ca Chessy Marne la Vallée man leen àdduna lu fi neexati àdduna dootul neex man de sama àdduna dootul neex lu tax muy neex yow ñi nga bëgg ñëpp ñi nga sopp ñëpp dem nañu ah ñi baax ñëpp dem nañu kon lu fi neexati yaw ñi nga sopp ak ñi baax kañ ñoo la fiy ñoo ñooñu dem nañu sëñ bi kon li ñu fi dese si néew nañ ko rafetal racine mi di filmé mo ngi ni di filmé barki dem lañ tok fi seureum bu mu bokal ndey ak bay di taw papam fatou ta ñaatat lam racine 40 ans 40 ans la am juste 77 la judd ñeen fukkat rasin racine mi dundam man na neexati fu mu tollu mu ngi koy xalaat di xalaat dom yu ndaw yu mu wa wa wa legi man mi di wax ak yeen xeyuma fi ñu ne ma son papa alaaji munirou ousmane djegen gaañu na loolu amul yéen ñëpp ngeen yëg ko ci àdduna bi bind ci ta euh, euh, ñu ñu bokk ngeen def ay ñaan ñu toog euh, amul amul ñaareelu fanam ñetteelu fanam rakkam sëñ Mor Njëgeen mu sëñ Abdul Wahab gaañu mu amaat ñetti fan sëñ Pape si Njëgeen yaayam gaañu soxna Abibatu jàll soxna Fat bindu Diallo mais attends te man nim ma dalee noonu la dale Racine non la dalé kenen non la dalé kenen ak kenen ak kenen yeen ñep kenn ku ci nek am nga sa mbokk mu dem loolu lu mi signifier moy jangii jeexna sa way nañ waaj nañ waaj nañ waaj ñu góorgóorlu delu ci son borom delu ci ay gor góorgóorlu bàyyi ay terem moy ragal yalla jeexna sop borom à la place de qui ku ti doon gën ko sopp ñëpp moom yàlla subhanahu wa taala waaye ñu góorgóorlu mbokk yi ci jël sunu religion en main bu leen topp masse bi <laughs> plus grande est la masse plus noir est son cœur gars yi ñoo ko wax de bu leen topp masse bi prenez votre religion en main parce que ku deeg sa bàmmeel yow dong man loolu laa xam de loolu laa leen di wax de parce que nous en principe nous devons faire des ci bi sommes dérapage internet bi Facebook YouTube bi non, non non du Sénégal Ce du monde monde donc prenez votre religion en comme vous ngeen votre en ah bon c'est ça non <laughs> ah, salaire est top koy top top ah. di santé di to suñuy liggéey di to suñuy auto di jënd portable yu baax mais euh, fulla bobu doo ko amee ci sa digënté ak sa borom c'est lépp baax ma leen ko wax loolu daal la leen di denk mbokk yi ma ngi koy denk surtout la jeunesse réveillez-vous réveillez-vous prenez votre religion en main seen digënté ak seen borom jël leen ko en main ngeen jàng gëstu xam di gorgolu di jëfe di sellal di sax ci bëgg yàlla ak bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam riir mi nag dégg leen ko rek waaye du jël responsabilité jote jël leen seen responsabilité ndax ñi ngay bokkal di coow ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp su ñibbi jotee ku nekk ñibbi sa kër. su te noon billaahi noonu la ñuy dee su dee jote kenn ku nekk dee wallaahi du nekkoon téeméeri jullit tamit su ñu dee kenn ku nekk ak bàmmeelam demal Baqiya juróom ñaar fukki junni cey saxaaba yonent bi suul nañ leen foofu demal demal nga xool demal demal nga xool demal ci demal sëgg yoof xanaa yo sug yoof moo ëpp Dakar xanaa xoolal foofu da ngay mujj jaaxle barki démb di Habib Thiam gaañuwul Habib Thiam ancien premier ministre waaw Serigne Moustapha Cissé nag doomu sëñ euh, Awa bala Mbacke nag demul sëñ Aliou Mbacke doomu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma demul mais attention nan def ndànk waaw yal nañu yàlla suturaal mbokk yi yàlla doolu jàmm doolu sutura doolu teraanga gis nga li la programme on pour ñu bokk waxtane ko ci walu ragal yalla mais ragal na jarul ñu duggati ci détail yi kenn ku nekk xam nga li nga wara def que chacun fait ce euh, ce qu'il doit faire waaw que chacun fasse ce qu'il doit faire un point c'est tout moy delu ginnaw raxasu fóotu sangu tuubal yàlla euh, dindi sa xol iñaan soxor ah jéggale ñi la tooñ sax baal leen mbokk mi ñi la yow yow ñi nga tooñ jéggalu leen ñi la tooñ jéggal leen dund dund gu sedd xam nga wut suukar def sa live euh, wàcc daal posé loo am def lu baax mbokk mi loo am defal lu baax bul fàtte say wéyjur dimbali leen jàppale leen lu mu tuuti tuuti defal bu ko xeeb say mbokk bu leen bàyyi ñuy torox ñuy sonn bul seetaan mbokk mi bul seetaan jàpp ci dimbali leen bul wax naan dañoo ñàkk jom dañoo def lii amuñu lii xaw ma la déedéet déedéet dimbali len yalla ko tek sa loxo pour nga jàppale len mbok mi ñi nga amel bor fay len señ bi fay len ñi nga yoreel àq delloo len sen ak ñi keuri jambour yi nga jël delloo ko ba bagasi jambour yi delloo ko bàyyil wëlbatikul tuubal waaw mo ngok di julli nangul yalla di julli waaw di julli di sujjootal yalla, sujjoot julli sujjootal yalla, di yalla tewlu dara jam cërëm mom yalla di def yonent bi muy sa reference sa royu kay na li ci dess yep nga baye ci loxo yalla heure bu dee diké fek la yang ci li yalla gërem su ko defee lépp fi dini wa dunia wal akhirah su ma ko toppee fanan la ñuy fanaan taxaw na guddi fii ci ñun tuuti tabarakallah ah, dañ ko ki won rek pour ñu seddo wat encore euh, wéru koor gi njëriñ donc finalité wéru koor mom moy ragal yalla ragal yalla nak li ñuy tëjee li alaaj degen radiyallahu taala anhu waxoon nee na ragal yàlla téeméeri daraja la nee na juróom fukki yi mooy sopp yàlla gis nga kon weddi nañ ñi yàlla doo ko ragalee da koy ragal yàlla doo ko ragalee da koy wuti gaynde doo ko ragalee da nga koy daw bukki doo ko ragalee da ngay daw su explosion amee da ngay daw mais yàlla doo ko ragalee da koy wuti mooy sopp ko mu ne mu des yeneen juróom fukk cinquante yi nee na vingt cinq yi nee na mooy jëfe ndigalam yeneen cinquante yi yeneen vingt cinq yi nee na mooy bàyyi ay tereem jeex na sopp yàlla jëfe ndigal bàyyi tere sopp yàlla jëfe ndigal bàyyi tere sopp yàlla jëfe ndigal bàyyi tere ku ci sax si lépp baax àdduna ak àllaaxira waaye loo mënti am foo mënti doon koo mënti doon te nekkoo ci lii bis dina jot di ko rëcc wax naa ko barki dem ci chesi billaahi soo faatoo ba wéet ak sa borom ci sa biir bàmmeel di nga xam ni dëggu rek am solo billaahi wax naa leen ko coow lii yëpp fii la alaaj Mouhamed Ndieguene daan na wax ne daan na wax ne mel yàlla ñu jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon dañuy yem foofu rek incha allah dinañ amaat yeneen occasion sinon tamit na ngeen ñu euh, karaat ci youtube am na vidéo yu bëri yu bees euh, yu ñu def en français résumé yi waxtaan yi ñu def yëpp ñoo ngi ko def en français commencé nañ liggéey bi tey jii incha allah ñoo ngi ci waajal yeneen ak euh, Mouhamed ak Ibrahim ak gars yi incha allah yal nañu yàlla dimbali dinañ def beneen vidéo incha allah pour nag remercier mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñu doon suivre ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nag par rapport euh, ak xew-xew yi ah ci àdduna bi ñii di suñuy kilifa ñii di suñuy sëriñ ñii di suñuy mbokk ñii di suñuy goro ñii suñuy soppe ku mel ni soxna Mbengue Diagne tabaarakallaahu bu Viry-Châtillon euh, ñoom ñëpp ñoom ñëpp incha allah dinañ def vidéo spéciale pour gërëm ñëpp delloo ñëpp njukkal ndax euh, suñu sang lañu suñu kilifa lañu suñu mbokk yi japon yi sëñ Demba Jaxate tabaarakallaahu ah Euh, tabaarakallahu waa euh, Portugal yi waa Espagne yi waa Angleterre yi suñu jarbaat yi nekk Canada euh, waa waa Amérique yi tabaarakallahu waa Londres yi ñëpp incha allah dinañ def vidéo spéciale échange ak ñoom encore pour wax leen ne leen ah dëgg la waa Sénégal dinañ ci jariñu waaye nag lii lim gë ñi mu ñi mu gën a solol mooy ñi nga xamante ne ñoo ci àll bi te am na yu bëri àgguñ ca يالا نيالا ديمبلي جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته